ko waxee sànq bi ma ko gisee dama dama am dama am mbetteel dama am mbetteel parce que du loolu du loolu moom la ñu xaar liste bi xool naa ko 70 yi amul benn responsable APR bu ci bokk. bu teewoon y en a pas gisuma ko ci. politique coloré bu ci xam gisuma ko ci. coalition bi même chose gisuma ko ci Benno Bokk Yaakaar donc APR ñooy parti pouvoir amuñu député amuñu amuñu conseil communal amuñu lu boo xam ne bokk na ci également ci au conseil bi loolu du loolu moom la xaar. bu dee ci wàllu politique rek moo doon critère déterminant bi war nañ tey war a mën a am wàll bu dee également ci wàllu technicité la également war nañ tey war a mën a am wàll ñaar la soit politique wala technicité te bu dee ñaar yëpp yaakaar naa ni am na fi ñàkku fi donc mbetteel lañ ci am surprise lañ ci am également mission bi ñi nga xamante ni moom la ñu sant hmm, ni ma gis affaire yi day am naa yaakaar ni gëwuma ni dina dina dina war a mën a dox dina sooxe xam naa ni. waaw parce que gis naa ci ñoo xamante ne nii ils étaient avec Wade ñoo xam ne fàtte woon lañ ñeen ci ay parti ñoo xam ne nii bu ñu demoon présidentielle 0,5 pour sax mënuñu ko naa leen ci liste bi ñu bokkoon ak ñoo àndoon ak Fada ak ñeneen ñeneen ak ñeneen ak ñeneen gis naa ko wax naa ko sànq tamit yaa un groupe boo xam ne ñi ñi ngi tiyaawoon defuñu dara pour jéem a véritablement aider ñi nga xamante ne ñoo fi nekk au contraire dañ lay sax combattre dañ lay sax combattre wax naa ko léegi en wolof ñu dindi sono bu dara amee on te met tout le temps devant le fait accompli rencontre day am sax yëg ah dañuy dem def lu leen neex ñëw on te met devant le fait accompli parti au pouvoir lañu mais parti bi parti ça ne parti bi dañuy gérer campagne bu élection amee daal un mois que deux semaines avant gars yi ñëw allez bu passé passé na parti bi ça ne vit pas wul te loolu du loolu mooy doxal parti du loolu mooy doxal parti parti bi bougé wul parti bi animé wul donc euh, euh, ñi fi nekk daal honnêtement di la soxare jàpp naa ne ñoo ëpp foofu ñi fi nekk pare yéen yéen la dara. way am na fii am na fii parce que booy jeunes yi ngay gis fii yëpp pratiquement euh, c'est dommage amuñu amuñu amuñu amuñu amuñu ku leen jàppale état bi am na ay structures yoo xam ne teg na ko mu di ANPEJ ñoom pour ñu agence nationale de la promotion de l'emploi mais fii booy ñi ngi nii c'est le chômage amuñu liggéey amuñu liggéey waa ANPEJ gis gis ñu leen jeunes yaa ngi nii gis ñu waa ANPEJ ah waa ANAMO agence nationale pour la pour la maison pour la maison de l'outil également même chose booy ñu ngi fii ñooñu également gis ñu leen ah ONFP office national de la formation professionnelle ñoom également jeunes yi ñu ngi nii gis ñu leen femmes yi c'est pareil femmes yi soxlawuñ dara lu dul financement ku leen encadré ñu liggéey elles sont là elles fu nekk la ñuy dugg def def ci banques yi du ñu mën a financement amuñu garantie ah elles sont livrées à véritablement elles-mêmes dañu sonn li ñu bëgg rek mooy ku leen jàppale loolu ñun la war parce que ñun ñoo ne boo gisee ñu def lii lépp c'est parce que a naan sangul sa taar la bëgg rek ñun mënuñu bañ Macky Sall c'est pas possible parce que on est mag ba ko kenn gëmul ñu ñoo ko gëm donc kon ñun mënuñu ko bañ donc mais am nañu droit bu ñuy xamante ni gis nañu ñu ngi koy dugal ci benn direction boo xamante ne du foofu ñu ne ko mais fii ñu la bëgg a dugal mais du foofu loolu rek la li ma décidé wax naa ko léegi tout de suite compte tenu de tout ce qui est pressé ak li fi a defal dara jàkkaarloog famille te bu mel dafa dara te ñoom ñoo waroon jàppale démb ak bërki démb ñu créer des au conseil des collectivités territoriales nga xam ne ça colle à ton profil toi tu es un expert en décentralisation on t'adapte des listes ba pare on te ñu naan la léegi nga continuer waat di ci di ci di ci kaay continuer waat di bokk ci mouvement bi loolu laa mënatul loolu ci loolu laa tay la conséquence immédiate dama gelé samay activité démissionné wu ma APR jusqu'à ce que may rencontrer président Macky Sall mooy décision finale bi.